Sene Info International internautes ñuy bàyyi xel ci Sene Info point net ak Info International suñu différentes plateformes yi ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ci teewlu bi di amaat mbégte bu baax kon di leen digtal yor yoru Sene Info ñu ciy dikkaatak ak yéen ci actualité rawatina di gën a fës ci xëtu njëkku yéene kaay yi bu ko defee rek kon dañuy tàmbaleeg yéenekaay bii di le quotidien ñoom nag li ñu fësal seen xët wu njëkk moom mooy euh, candidature Amadou Ba mi nga xam ne moo war a teewal coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bu 2024 kii di abu Abel Thiam nag euh, mu jàpp ne sax euh, kon moom Amadou Ba mën na gagné élection yi ci premier tour bi ndax nag nee na bilangu Macky Sall day doon loo xam ne kon daal lu muy campagne lay doon te nee na sax kii di njiitu réew mi Macky Sall euh, mooy doon directeur campagne am mu ne nag fi mu nekk nii li mu gis mooy kii di Amadou Ba dafa war a démissionné kon ci bopp primature ci nu mu gën a gaawee dikkaat nañu itam ci suñu gaynde yi nga xam ne nag Algérie dóorati na leen bii di ñeenteel yoon kon fu ñu dajeek Algérie rek kon mu làpp ñu dem nag kon 1-0 la ñu dóor ci match amical bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal euh, fii ci Dakar ci stade Abdoulaye Wade kon bu jam ñaajo le témoin yéen kay fësal seen xët bu njëkk ñu ne gannaaw Aly Ngouille Ndiaye ak maam Boye Diao ñi nga xam ne nag kon euh, génn nañu euh, biir APR rek biir coalition Benno Bokk Yaakaar bersen yoonu bopp ñu ne fi mu nekk nii nag ana kan moo cay topp xam ngeen ne nag gannaaw Aly nguy Ndiaye moom sax euh, bi nga xam ne rek. Euh, tànn nañu kii di euh, Amadou Ba moom ci la démissionné woon ki nga xam ne nag moom mooy Mame Boye Diao démb la amal kon ab rencontre ak journaliste yi xam la ci ne daal day samp ndëndam élection présidentielle bu 2024 euh, ñaari waxtu lañ ca teg décret daanu ñu jëlee ko ci boppu caisse de dépôt et consignation ba taxoon suñu naataango samp laaj ne ana kan moo cay topp sëñ Modou mën nañ jàll ci beneen quotidien direct news nag fësal seen xët wu njëkk PDS ak nag euh, opération ñibbisi ñu ne nag euh, Karim Wade daal fi mu nekk nii euh, war na wane daal ne kon dina ñibbisi ak yooyu ndax daal ba fi mu nekk nii ay message Facebook ak Twitter rek la ñuy gis kenn mënul gis moom Karim Wade si boppam kenn mënul gis déclaration vidéo am wala yi ñu ne nag kon fi mu nekk nii daal moom war na wane loo xam ne dina dalal xelu ñi nga xam ne ñoom ñooy. ay militangam ñu xam ne baax Bakhoum dina ñibbisi fii ci euh, Dakar euh, gannaaw ci Sénégal gannaaw bi nga xamee ne nag kon euh, fi mu nekk ni sax mën na bokk ci élection présidentielle bi Serigne Mor beneen yéene kay moom mooy le soleil. ñoom nag ñu ngi fësal seen xët bu njëkk Mame Boye Diao mi nga xam ne ñu ngi ko doon wax sànq Macky Sall limogené ko ci boppu caisse de dépôt et consignation gannaaw bi nga xamee ne nag kon dafa daal ne dina samp ndëndam élection présidentielle 2024 wante itam beneen mbir bu am solo muy nag usine de fabrication de meubles usine boo xam ne kon dañ fay defaree meuble fële si Diamniadio ñu ne nag euh, njiitu réew Macky Sall inauguré na ko ñu ne boobu nag euh, moom mooy usine bi gën a mag kon biy defar ay meubles ci li nga xam ne moom mooy espace UEMOA bi yaakaar naa am na euh, solo lool beneen yéenekaay sëñ Mor bu ñu jàllee laas lay doon laas euh, quotidien li mu fësal ci xëtam mu njëkk nag ñu ne choix Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo nag ñu ne bésub tey bi dina démissionné kon ci bopp euh, li nga xam ne kon moom mooy conseil social et environnemental suñu naataango yu laas ñoo xam ne li ni mel wante itam ñëwaat nañ ca Mame Boye Diao mañ ne dàq nañ ko bopp caisse de dépôt e consignation euh, beneen yéenekaay sëñ Mor moom mooy libération ñoom nag ñëwaat nañ ci manifestation yi nga xam ne am na fële ca euh, Xosanto ba ñaar nit ñàkkoon ci seen bakkan ñu ne nag la nga xam ne autopsie yi moom la révélé moom mooy euh, kenn ka daal ba ñu xoolee kooram muy Bakary Sissoko ak ñaar lañ sax Ibrahima Ouedraogo bu fekkee nag ku njëkk gi Bakary Sissoko nee na Euh, bal la ko rey néew bal sax dafa traversé li nga xam ne moom mooy karaanam ka ca topp ñu ne hémorragie interne la am maanaam deret boo xam ne da doon nàcc ci biir te sax euh, kenn du ko gis euh, ñu ne moom it bal lañ ko dóor muy mbir mu doy waar sëriñ Mor sànq maa ko doon waxtaanee yaakaar naa daal force de l'ordre yu Sénégal war nañu bàyyi di utiliser ay bal réel di ko dóor ay ay ay ay manifestant bañ ciy dee naa manifestation bu amee am nañ différents moyens pour Euh, daal euh, calmer nit ñi menacer leen bal euh, kii am na tir de sommation bu nga ko dóor mun nga dóor ay bal yoo xam ne du bal réel quoi mën nga ko utiliser mais pas ñuy dóor ay bal réel di rey ay doomu aadama nii ci ay ay ci ay manifestation loolu daal suñu force de l'ordre yi sëñ Modou war nañ leen si tàggataat beneen affaire moom mooy wala boo delsee tuuti sëñ Modou ci boobu ndax am na point bu am solo boo xam ne bëggoon naa ko cee indi muy mbirum Ousmane Sonko ak Basirou Faye fi mu nekk nii nag euh, yoon daal dañoo bëgg a gën a diisalaat li nga xam ne moom la ñuy toppee Basirou Faye daanaka sax. day day day niroog li ñuy toppee Ousmane Sonko booy xool fi mu nekk nii daal kon dañoo bëgg a daal euh, def euh, li ñu naan euh, boobule dossier daal li ñu naan jonction kon la ci yoon bëgg a amal maanaam daal ñaari dossiers yi ñu méngale ko nirale ko ba li nga xam ne moom la ñuy toppee Ousmane Sonko daanaka ñu koy toppee Bassirou Faye loolu nag kon dina tax ba ay mbiram dina gën a doy waar sama naataango bi di Pape Alé Niang sax wax ci ne loolu daal. lenn rek lañ ci bëgg mooy fi mu nekk nii yaakaar nañ ne kon ba Bassirou Diomaye fay mooy numéro de bu Pastef mën a remplacer Ousmane Sonko kon ba tax ñu gën koo euh, gën a bugg a suuxal bu ñu sukkandikoo kon ci Pape Alé Niang beneen yéenekaay euh, sëñ Mor buñ ca jàllee moom mooy enquête enquête nag liñ fësal seen xët bu njëkk Pastef gis nga mi ñu doon wax léegi nee nañ sax syndrome PDS wala boog euh, taxawu day yoote li nga xam ne moom mooy Pastef wala sax kon yegsi na ba noppi ndax nag xam nga PDS ak taxawu euh, ay jamono si ginnaaw seenu euh, bokk ci élection présidentielle leeragul woon ndax ki nga xam ne moom mooy euh, Euh, Khalifa Sall bu taxaw ak kii di euh, kon euh, Karim Wade bu PDS mu ñaar ñaar ñëpp dañoo amoon jafe-jafe si wàllu yoon ba sax ñu naan seen bokk du seen bokk wóorul léegi nag ba nga xam ne nag loi ba jàll na assemblée nationale ba ñu ko fi mu nekk nii ñoom seen cas réglé nañ ko dinañ bokk Pastef nag kon ci même boobu la nekk fi mu nekk nii nag am ñoo xam ne sax jàpp nañ ne ku si mel ni Lassana dañuy saaxo jàpp na ne kon fi mu nekk nii Pastef daal li ñu li ñu war a def pour jéem a bokk ci élection présidentielle moom mooy ñu xool plan A B ba C moom sax nee na A B ba C fi mu nekk nii war nañ ko jéem a xool ngir nag seen ku bokk ci yooyu la élection ñëwaat nañ itam euh, ci euh, waaw wala beneen journal rek tribune yéen kaay fësal euh, li nga xam ne moom mooy démission bu Mame Boye Diao démb ñu ne nag gannaaw Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao fi mu nekk nii nag ana kan mooy wanaat ginnaaw Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar ñëw nañ itam ci euh, maanaam euh, candidat yu bëri yi nga xam ne nekk mu ngi commencé am biir euh, benn Bokk Yaakaar ak nag jafe-jafe yi nga xam ne mën na leen ko indil bu ñu demee ci élection présidentielle ba léegi te ñu ñëwaat ci mbaam booy Diao bi nga xam ne nag gannaaw ba jëlee kon boobu lee dogal wax na day bokk ci élection présidentielle yàggul dara sax kon Macky Sall tekki na ndombal tàkkam ci boppu caisse de dépôt consignation euh, sëñ ma mën a jàll ci beneen yéenekaay l'observateur ñoom nag euh, dikkaat nañ ba léegi ci liñ doon wax léegi maanaam candidature yu bëri yi nga xam ne mu ngi meññi biir euh, APR ak nak jafe-jafe yi nga xam ne kon mën na leen indil ñoom sax ñu ne loolu ndax daal ay nit yuy bañ la rek bañ seen bañ dem ber seen yoon bopp ñu ne boog wala ruse la wala boog ay naxaate la mbir moo xam ne dañ ko utiliser noonu jéem a créer ay yeneen candidat ci biir pour mën a daal euh, xool nu ñuy doxalee ba dem ci yooyu am na yoo xam ne kon dañoo jàpp ne peut ay ruse la naxaate la am ñoo jàpp ne peut dissidence la ñii daal dañoo gis ne ñoom waroon nañu mën a ne candidat choisir leen ñu mer dem ñëwaat nañ it euh, ci mbirum euh, santé ak épilepsie épilepsie nag sëñ dafa nekk benn jàngoro joo xam ne dañoo maanaam def épilepsie ak ñi nga xam ne dañoo wan lor jigéen ñi nga xam ne kon dañoo wan lor xam nga épilepsie da nga yenn saa yi mu ngi dem ay crise di tëb di dal ak yooyu xam nga loolu nag mu tombeel jigéen nga wanu lor day nekk mbir mu xaw a doy waar ab jàngat kon euh, lañ ci def ñëwaat it ci mbirum euh, ndaw soosu nga xam ne kon muy Khady Ndiaye te ñu ne nag kam doon bëgganteel euh, moom moo ko faat fële ci Kër Mbay Fall ak nag ay seede yoo xam ne ay ñoñam ay kon fameem ñëw nañ muy ay paaram kon def nañ ko ci mbir moomu beneen ba yéene kaay sëñ euh, moom mooy les échos ñoom nag dikkaat nañ ci mbirum euh, ki nga xam ne mooy Diop Taïf ak Vito euh, nga xam ne nag article quatre-vingt la ñu sukkandiku kon ba inculpé leen ñu ne nag ba su tey bii la ñu war a jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy àttekat bi. Euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy seen avocat ñoom dañoo bëgg daal plaider ngir ñu renvoyer euh, boobule audience ngir nag ñu gën a mën a euh, defarwaat ngir mën leen defendre dikkaat nañ ci match Sénégal bu Algérie ñu ne nag Aliou Cissé daanooti ci kanamu kii di Belmadi ñi nga xam ne nag ñoom ñaar sax am nañ parcours boo xam ne bokk nañ ko muy entraîneur bu Algérie ak bu Sénégal depuis seen ndaw jaarandoo Paris Saint-Germain ak loolu lépp dem ba doon entraîneur wante daal dañoo gis ne fu ñu dajee rek défaite Aliou kii di Aliou Cissé défaite la koy jëlee ñoom nag les ko ñu gis ne daal euh, attaque bi euh, moo xawoon dese efficacité ak euh, daal yeneen i jafe-jafe yoo xam ne kon tax naa ba Sénégal boobu le match amical ñàkk na ko muy nag loo xam ne géej na am kon défaite moom xawoon nañ ko gëj a am sëñ Mor bu ñu jàllee ci beneen yéenekaay moom mooy. Walf Quotidien dafa dikkaat ci candidature yu bëri yi nga xam ne mu ngi am ci biir Euh, li nga xam ne euh, moom mooy euh, benn Bokk Yaakaar ñu ne nag loolu dafa mel ni fi mu nekk nii Macky Sall dafa ñàkk kilifteef bi nga xam ne kon am na ko ci bopp boobule coalition wante itam candidat bu Mame Boye Diao moom nag neena dafa bëgg Sénégal bu bees moom nag fàttaliwaat nañ ne dañ ko limogé gannaaw ba nga xamee ne rek nee na nekk na candidat tuuti lañ ca teg ñaari waxtu décret wàcc ñu dàq ko ci bopp caisse de dépôt et consignation beneen yéenekaay sëñ Mor moom mooy euh, Vox Pop ba léegi booy xool li ñu fësal it bokk na ca Mame booy Diao mi ñu dàq wante itam Khalifa Sall ak Mimi ñu ne daal ñoom fi mu nekk nii ñu ngi au cœur maanaam daal ñu ne seen digg campagne pour li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bi dikkaat nañu it ci réewu Maroc ak euh, kon suuf si yëngu bu métti ba fa am euh, la fa faatu daanaka jege 3000 euh, personnes ki nga xam ne moom mooy buur ba di Mohamed VI dafa dem nag ci hôpital yi ngir nemmeeku ñi nga xam ne ñoom ñoo amee ay gaañu gaañu sëñ moom nañ jàll ci beneen yéenekaay muy bés bi le jour. départ de Benno Bokk Yaakaar candidat limogé loolu lay ñëwaat mbirum Mame Boye Diao nga gis sax ñu tuddee ko Mame Boye Diao maanaam Mame dem na dikkaat nag euh, ci li nga xam ne moom mooy moom li mu bëgg maanaam Sénégal bu bees nee na la bëgg a indiwaat ñëwaat nañ itam euh, ci euh, li nga xam ne euh, moom mooy mbirum Cheikh Ahmed Tidiane Cissé xam nga nag fan yi ñu weesu dafa waxoon ay mbir yu xaw day waar ay kàddu yëkkati ko ci mbirum alxuraan ak sunu borom ba tax nag ñu ne association islamique yi daal ñoom ñoo booloo saisir procureur ngir mu àddu ci boobu la mbir Serigne Mor beneen yéenekaay moom mooy l'info ba léegi dikkaat nañ ci candidature Mame Boye jaaw ñu ne Mame Boye jaaw nag euh, wane ne carrément daal soit amoon Ba ba àndu ca ba tax nag ber na yoonu boppam te moom sax dafa jàpp ne mu ne Sénégalais bépp boo xam ne dafa bëgg a présenter candidat dañ ko war a bàyyi mu présenter li nga xam ne moom mooy euh, candidat am kon dem ci élection présidentielle bu mille vingt 2024 dikkaat nañ itam euh, ci wala boog euh, beneen yéenekaay le Sud Quotidien euh, dikk si ba léegi mbirum Mame Boye Diao nee nañ nag moom ligne rouge bi nga xam ne sampoon nañ ko biir APR te Macky maanaam Sall ak daal ne woon bu kenn lenn yi daal bëgguñu ko nee nañ moom nag boobu li ligne franchir na ko kon samp na ndëndam ci élection présidentielle bu moom moom Mame Boye wante nag lam ca jëlee moom mooy dàq nañ ko ci bopp kees de dépôt et consignation ñu ñëwaat it ci Mamour Ibra bi nga xam ne moom ak euh, mouvement euh, bi itam ñu ngi waajal li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bu 2024 sunu lamb dikkaat ci stade Léopold Sédar Senghor ak 17 combats yoo xam ne organiser nañ ko fa ci trente 34 ans ñi ne nag euh, Mohamed ki nga xam ne moom mooy Yékini nag daa mel ni kon stade boobule di stade Léopold Sédar Senghor jig na ko lool ndax nag ay ndam yu bëree bëri amee na ko ñu ne wante nag kii di Tyson moom daa mel ni boobu la stade jigu ko baaxu si moom ndax nag yaakaar naa Tyson moom defetam yu bëri itam moom ci boobu la stade la sëñ Mor daanaka ñoom loolu lay fësal seen xët wu njëkk dikkaat nañ it wala boog stade yéen kaay kon ci la ñuy dem match Sénégal Algérie bi la ñu fësal ñu première défaite à domicile depuis 2012 maanaam 2012 ba léegi kon Sénégal mu ngi doog a amaat défaite boo xam ne moom moo dalal fii ci réew mi kon euh, muy match euh, démb bi ñu ne nag euh, ñëwaat nañ ci defance ñu défense bi daal dafa surprenant parce que dañoo gis yenn yoo xam ne yu xaw dara attaque boo xam ne dañoo manqué efficacité pour daal mën a dugal Serigne Mor ñëwaat it ci ki nga xam ne. moom mooy ñaari entraîneur yi ak li ñu doon wax si ñoom sànq rek euh, ko ci nekk daal la euh, mu euh, génne waaw dikkaat nga ci Mor Aliou Cissé di wax de maanaam dans l'ensemble daal moom gis na ne ay joueur am li ñu joxe baax na ki nga xam ne it mooy Belmadi di entraîneur SC bi nee na moom li mu bëggaat moom mooy dajeek Sénégal ci finalu li nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique mais yaakaar naa boobu moom nee moom instant moom. match amical la door wante da da koy leer na moom fu ñu dajawaatee ak moom final moom du yomb ndax ñu bàyyi ñu dóor ñaari yoon ci final coupe d'Afrique source A ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy euh, mbirum dossier Ousmane Sonko ak euh, daal euh, kii di Bassirou Diomaye Faye sànq maa ngi la ko doon wax ñu ne nag juge Maham Diallo daal dafa daal gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy Euh, dossier bu Bassirou Diomaye Faye ñooy désormais euh, ki ñuy woowee numéro de Pastef ñu ngi koy toppee appel à l'insurrection association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'État ak yooyu daal loo xam ne daal day gën a chargé li nga xam ne moom mooy euh, boobule dossier wante ci ñëwaat nañ ci Mame Boye Diao bi nga xam ne gannaaw bam ne day bokk ci élection ba daal yàggul dara dàq nañ ko kon ci boppu kees de dépôt et euh, consignation beneen bu yéenekaay Serigne Mor moom mooy l'évidence quotidien ñoom nag ñu ngi fësal yaay faatu Diagne ba léegi ci candidat bi nga xam ne moom mooy Amadou Ba war a teewal Benno Bokk Yaakaar moom nag jàpp na ne mënuñu woon tànn candidat bu gën ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba kon moom yaay faatu Diagne loolu daal la gis ñëwaat nañu it ci Mame Boye euh, Diao ngi ne nag gannaaw biñ ko dàqee ca ngoon sa dafa dem fi nga xam ne. Euh, moom mooy stade euh, ñu tere ko mu dugg Mor loolu it man injustice laa ko jàppee euh, pourquoi au nom de quoi moom daf ne ci li nga xam ne ay directive ñi ko wax dañ ne directive ministre des sports lañ jot ba tax ñu kii ko ministre des sports ñu fàttali moom mooy en même temps premier ministre di Amadou Ba loolu beneen injustice la boo xam ne kon jàpp nañ ne du yoon parce que tey tey it état loolu da leen di ñàkkal fula ah, pour man état day ñàkkal loolu fula tey stade sénégalais la comme yeneen sénégalais le fait que bokkatul si ñoom warul tax euh, ñu ne dañ koy dàq ak euh, yi ni mel euh, pour man dafa waroon dem dugg stade comme Sénégal parce que ministre boobu jël boobu la décision. ëppale ko ci stade boobu nga xam ne ngir stade du Sénégal yëpp la kon beneen insulte boo xam ne it ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu sëñ Mor ñu jàll ci beneen euh, yéenekaay euh, moom mooy euh, dakaar Times yaakaar naa mooy bu mujj bi bu ma juumal ñoom nag dikkaat nañ wala boog des naa kon moom mooy def siñ ne des na Dakar Times fësal seen xët bu njëkk li nga xam ne Euh, moom mooy euh, wan ginnaaw bi nga xam ne daal dañoo gis ne Afrique francophone fi mu nekk nii wan na ko ginnaaw réewum France xam nga loolu nag li ñu naan sentiment anti français mort dafa am ci dëkk yu bëri ci Afrique da ngay gis ne rawatina jeunes yi daal dañ ne bëggatuñu dara ci li nga xam ne moom mooy réewum France nee seen armée sax la jóge si yooyu dëkk ab jàngat na kon la ñu amal euh, ngir daal xool ana. lan moo waral li ni mel ñëwaat na ñit eh, ci eh, séisme ba am fële ca Maroc muy suuf su yëngu sa ak nag eh, buur ba di Mohamed VI lii sax ab nataalam la mu demoon ci l'hôpital ya di nemmeeku ñi nga xam ne ñoo amee ay gaañu gaañu ci mbir mu métti moomule moor kon ñu demaat ci des ba léegi le mandat fësal ki nga xam ne kon moom mooy daal euh, Mame Boye Diao ñu ne nag njiit réew Macky Sall daal dafa nekk euh, koo xam ne ay conviction maanaam li nga xam ne daal moom la wax gëm ko koo xam ne euh, daal jéggi na ko rek yar bi dal sa kaw ba tax kon ñu ne kii di Mame Boye Diao kon acca dàq nañ ko ñëwaat it ci mbir ma xew xosanto ak ministre de l'intérieur mi nga xam ne dem na fa ngir nag saafoon tekk ñoom wante na ko mu fa demee sax ay brassard rouge ay brassard brassard yu lañ ko fa teeroo ngir won leen seenuk naqar beneen yéenekaay sëñ Mor mooy yoor yoor yoor yoor kon lañ koy daanelee sax ñoom nag euh, gis nañ ne daal euh, tànn ba ñu tànn am Amadou Ba ngir mu jiite lii di coalition Benno Bokk Yaakaar commencé naa tasaare boobule coalition ba gis sax ñu def kon seenu ba nataal lu mel ni Benno ak daal comme bomb ba kalaatee jàpp nañ ne kon li nga xam ne moom mooy Benno daal euh, seenu tasaaroo Euh, tàmbali na yaakaar naa foofu lañ koy daanelee sëñ Mor di la jaajëfal di jaajëfal it mbokk internautes yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi euh, bàyyi xel ci seneinfo point net ak seneinfo international suñu transforme suñu plateforme yu fasantikoo yi di am mbégte bu baax a baax di leen jox dig daje ëllëg beneen yor yor Seneinfo International